Valdiodio Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay gërëm di la sant jërëjëf. ngay waa rajo réew mi. ak seen auditeurs yi. Mhm. ngay expert électoral euh, bokk tamit ci société civile euh, tey ñu waxtaanee ci liste yi nga xam ne ñu ngi koy waajal euh, am na amal nañ ko ba pare sax déposé ko di waajal li nga xam ne mooy élection territoriale yi ñu dëgmal ci weeru janvier mu am ay coalition yi nga xam ne jotuñoo déposé ndax ba ñuy déposé fekk délai ba passé na ñooñu tey ndax am nañu possibilité def recours mun nañu def recours bu fekkee par exemple le dafa dafa dafa justifié wu mm-hmm. euh, loolu mun nañu mun nañu éviter mun nañu def recours mm-hmm. parce que les dispositions légales au Sénégal permettent ñëpp par exemple quand tu te sens lésé ou mm-hmm. bien un acte da nga ko def de manière euh, boo xam ne par exemple bu TF mm-hmm. euh, toujours dañuy aménager euh, une ouverture pour leur permettre à toutes les listes de pouvoir faire un recours donc loolu dafa am solo ci réew mi mm-hmm. je crois que bon sous réserve évidemment li wax xoolaat euh, parce que newuma Sénégal mm-hmm. mais yaakaar naa ne euh, disposition légale yooyu bàyyi nañ ko ci biir pour permettre aux Sénégalais de pouvoir euh, les listes qui ont déposé qui ont été forclos de pouvoir faire un recours pour donner la chance jox ñëpp euh, seen wërsëg bu mm-hmm. fekkee dañuy présenter benn programme mun ko def mbëbët ci réew mi pour euh, mun a mun a mun a candidater comme ñëpp au nom du principe de l'équité et de la justice waaw. te li ni procédure bi ci ban diir lay toll. maanaam gannaaw dépôt des listes. waaw ci li ma jàpp ah, mun naa juum nag ci li ma jàpp euh, parce que comme ni mu la ko waxee nekkuma Sénégal. Mhm. Euh, donc euh, aménagement yenn aménagement yi implication directe aw ma ko si woon. Mhm. mais normalement xanaa dinañ leen jox ñu diiru ñetti fan pour ñu mun a def recours ba mun a. bénéficier wu euh, des dispositions yi loi bi aménagé ci mbir mhm. dañuy wax publication officielle liste Euh, ndax tey mën nañoo xaarandi ay tête de liste yi nga xam ne dégg nañ leen ba pare te déposé nañ seeni liste ñu changé leen euh, ci bu ñuy publier liste yi officiellement. non non loolu mënul nekk. Hmm. mënul nekk parce que en fait euh, loolu parti politique yi ñoo ko mën a def. Hmm. ñoo ko a def mandataire bi déposé moo ko mën a def nga xam ne def c'est un délégataire de pouvoir du parti politique ou de la coalition. Hmm. bi compétir mais normalement euh, ci li ñu jàpp ak décision yi ñu jëloon en moins que peut-être euh, ñu teg benn deal ci suuf normalement narul am changement bu mel noonu. Mhm. tey ca Matam ñoo ngi dégg benn cas de figure bi nga xam ne dal na yeewi askan wi euh, je suppose que am nga information yi tey jii ñoom ñoo euh, ñooñu nga xam ne préfet maanaam autorité ga nekk seen diwaan mënul lijjanti mbir mi euh, daal nañ def recours ci cour d'appel euh, nan nga jàngatee déjà mbir ma fa am. en tout cas mbir ma fa am scandale la. loolu kenn rafetloo ko parce que dafay génn ci principaux éthique ak mm-hmm. yow duñ la jox duñ la responsabiliser pour benn mbir. nga dem ba ci cappaandaw gi nga nga trahir ñi la ñi la mhm. loolu mooy principe bu njëkk bi nit booy bu fekkee da ngay génn ci coalition da nga koy assumer Euh, très clairement ñu changer la remplacer la mhm. mais li mu def man yaakaar naa ni juge bi dina rétablir yeewu yoonu askan wi euh, euh, yeewi askan wi mm ko liste ko yeewu askan wi seen droit mm parce que kooku waa yeewi askan wi dañ ko wóolu jox ko seen euh, baat mu dem fa téye affaire bi def lu ko neex mm-hmm. donc euh, man au nom du principe de l'éthique et de la justice et de l'équité dañu nar a euh, maa ngi ñaan juge bi vraiment mu rétablir waa Yewwi Askan Wi dans leurs droits pour ci maanaam ñu mën a déposer seen nit ci jàmm ak salaam. généralement nii ni ñu euh, waree euh, déglu euh, cour d'appel ci ban ñaata diir ndax dina yàgg wala. ah li gën de mooy affaire mbir mi ñu traité ko nu mu gën a gaawee parce que je pense que décision de justice boobu na ci nu mu gaa gën a parce que élection moom ay problème mu délai la. te loolu législateur Sénégal bi mu koy bind aussi dafa fépp daf si dugal ay délais yu gàtt pour euh, traitement des dossiers et cetera mu mun a avancé nu mu gën a gaawee donc à ce niveau là yaakaar naa ne vraiment juge bi dina ko diligenter euh, rétablir waa Yewwi Askan Wi dans leur droit léegi déposé nañu liste yi lan mooy procédure bu ci topp. procédure bu ci topp mooy maanaam publier leen. Mm-hmm. ensuite maintenant ah, bu ñu leen publier def choix balaa ñu leen di publier aussi dafay am choix de couleur bu fekkee defuñu ko ba pare. Mm-hmm. pour liste yi ensuite publier liste définitive yi après les bu ñu paree ci loolu maintenant euh, dañuy dem ci impression bulletin yi parce que bu ñu fàtte ne ñaari weer rek moo des pour élection yi yegg si. Mm-hmm. évidemment euh, DG e am na ci ci liggéey bu am xolo bu mu nar a def. nga xam ne dafa nar a def la toute la logistique électorale évidemment loolu yëpp day buy am c'est sous la supervision de la Sénat mm -hmm. donc loolu mooy euh, mbir boo xam ne euh, mooy ci tegu parce que bul fàtte le le 23 janvier la ñuy voté mm-hmm. euh, ñu ngi ci novembre décembre mooy ci tegu ensuite maintenant ñu ngi ci janvier yaa ngi ci élection yi disposition légale yooyu il faut que euh, moo ciy tegu évidemment aussi am na révision des listes électorales bi ñu defoon ci mois de septembre mm-hmm. ak phase contentieuse bi ci tegu nar nañu publier définitivement les listes euh, des électeurs mooy maanaam li consacré fichier bu bu bees bu bees ñu xam ñaata sénégalais ñoo nekk ci biir fichier électoral bu bees mm-hmm. mu am tamit liste yi ñuy laam-laame ne toll na ci soixante six yi nga xam ne jamono ji ñoo nekk ci table direction général des élections euh, mu war a imprimer lu toll li ni mel ci ay bultin li ni mel bëriwul xam nga nag élection boo nee da ngay def démocratie da nga def li ci waat mm-hmm. ah, dafa démocratie Euh, dafa dafay am toujours un coût. Mhm. soit day ngay def démocratie wala bàyyi ko. Mhm. maintenant comme dafa am coût euh, mbir moomu il faut ñu def lu ci war euh, rappelé naa la léegi ci kàllaama nasaraan ne la CEDEAO loolu sax daf ko consacré ne réew mu nekk dañu nar a facilité citoyen bu nekk bu fekkee amul problème mu justice bu fekkee am na dix huit ans bu fekkee musul def naka sudul noonu léppam jaar na yoon bu buggee nekk candidat bu fekkee dafa am projet de société boo xam ne daf ko xalat ne mun na ko présenter réew mu def ko donc sous ce rapport là moi je pense que problème mu liste yi du problème euh, doon na ma wax sànq si français. waxi parrainage ndax euh, woon ndax du régler mbir mi. élection voilà ku xam élection di nga xam ne parrainage ñu ko dugal si élection locale parce que c'est énormément de coûts Euh, il faut que dans chaque département a chaque commune ñu xam nombre d'électeurs précis ensuite maintenant ñu def calcul bi loolu Sénégal antanu ko financièrement mhm. donc moo tax dafay jafe ñu mun a instaurer parrainage et ci élection locale te boo ko ci dugalee aussi même du respecter principe d'équité parce que maire bu nekk da maire boo xam ne boo amee cent parrain mun a nekk candidat keneen ki il lui faut peut-être vingt mille parrains pour nekk candidat donc yooyu euh, mooy principe yoo xam ne ñun waxoon nañ ko mhm. euh, lors de l'observation des élections de l'élection présidentielle ne woon nañ leen euh, pour élection locale yi dañu xoolaat code électoral bi parce que parrainage du ci mun a am du yoon du du mun a nekk évidemment bi ñu defee discussion yi si code électoral bi après euh, ils l'ont totalement génne parrainage si mbiru élection locale yi mm -hmm. donc loolu mooy gis nañ ne am na ay euh, violence politique ay jaamarloo yu amoon na si Ziguinchor li ni mel nag mu tiital askan wi lool ndax boo mayul euh, dina doon euh, nuyoo na te it dina feeñ ci élection yi nga doon expert électoral doon tamit bokk ci société civile tey ban appel ngay def politique yi waaw appel bi may def mooy comme ni nga ko waxee ci nasaraan xam nga Sénégal dafa doon réew moo xam ne tey boo ko xoolee même au plan géostratégique euh, li ñuy wax euh, suñuy yi dafay am dafa am menace bu doy waar muy menace djihadiste terrorisme et cetera. Mm-hmm. ñaareel ba dañu bëri xarit ci réew mi comme niñ koy waxee waaye xarit yooyu duñu xarit parce que boo xoolee bu baax ni jéego yi ñuy teg mooy tey. bu ñu xooloon mooy Sénégal tasaaroo. Mm-hmm. donc loolu moo tax euh, sénégalais yi. et seet nañu aussi à cause de la crise sociale depuis des un certain nombre de temps d'années chaque année da ngay gis ne euh, dëkk bi dafa tendu sénégalais léegi dootuñu waxtaan ci mbiru mbébétu xalaat mbébétu stratégie léegi li ñuy xa li ñuy wax ay saagante la dootuñu discuter ci mbiru idée dootuñu discuter si mbiru naka la ñuy defaree réew mi seen waxtaan yëpp léegi ni baaxul maa gën et cetera loolu nag jëmalul kër euh, jëmalul euh, kanam réew. Mm-hmm. moo tax dafa am solo ñu relever débat bi encore à nouveau ñu jiital cohésion sociale yu Sénégal ñu jiital intérêt stratégique bu Sénégal mooy maanaam euh, préserver l'intégrité de notre territoire ñu jiital. également la stabilité de ce pays parce que ci loolu la lépp xaj mooy maanaam développement donc vraiment maa ngi lancé appel aux hommes vraiment ni ñu yéegal débat bi bàyyi ñaañante bi ak saagante bi euh, vraiment ñoom si seen bopp ñu nekk sax des acteurs de la paix pour mun a dundëfal askan wi ñëpp dal quoi mm-hmm. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax